jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Grand Yoff nakar ak tiis bi nga xam ne moom moo fi daal di am Daouda magam daal di koy faat ci faatin gu doy waar loolu nag daal di fi sabab suñu ay tànk ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moo di yaayam dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi bu ko defee mu ñu walaat ñu ci mbir yi naka rek la demee waaye tamit joxe ay seede ci doomam jooju maman ñu ngi lay nuyu ngi lay fay ñëpp di gërëm ñëpp man maa am tiis gis naa loo xam ne man fooguma ko woon sax. tur bi naka la. man Mariama Konde. Mariama lan nga ci Daouda mi nga xam ne moom lañ daal di faat. Daouda sama doom la maa ko jur. ndax mën nga ñu ko faat lañ lañ bokk. li ñu la doomu bàjjanam la waaw. magam la moo ko mag moo mag Daouda waaw. naka la mbir yi demee ba mag ji daal di faat rakam ji la di Daouda. man yëguma ci dara. man maa ngi fi sama sama kër ma toog rek xale yi di xeex di atte ñiy atte di xeex te li ñu wax man fekkeewu ma ndax si ma ko waxoon man dama leen di yóbbu yoon ndax ñoom ñaari waruñu xeex dooñu bàjjëriñ doo mel ni jaay waruñu xeex waruñu xuloo bay xeex waaye bu ñu attee ñaar benn yoon ñaari yoon nanguñu nga yóbbu leen yoon yoon bu defee ci ñoom li war dinañu bàyyi xeex ak lu ma leen mënta am lu ñu leen mënta boole buy ñu demee yoon yoon dina def li war ci ñoom. fekk ñu bañ a xeex bay gaañante ma yéeguma si dara man de maa yee rek ñu ne ko soxna nag dee na waaw nuy de laak yéeg ci guddi 3 de matin la ma kenn fugg mu ne ma jug leen ma ne ko yow mu ne man la diw ma ne ko ah, la mu ne jugal sa doom sonn na sa doom jam nañ ko sa doom rey nañ ko jugal nga dem jàppali ko ma ne ko ah mu ne ko waaw rek ma yeesee magi waaw mu yeesee mag te maag toog tëdd tuuti rakku mag koo xam ne moo ko rey mu woo magam mag mag kuñ ku ñu rey ki mu ne ko jugal yóbbu naa sa rakk hôpital yóbbu naa ko jàpp nañ ko defar nañ ko li war bind na ordonnance jënd naa ordonnance bi ma man ko est dee na ki téléphone bi mu ne déedéet nee na dalal dalal deewul man ne kon baax na ci la tëdd bor set rek ñu war téléphone ñu ne gaañu na nii laa ki toll ki sama doom maa ngi ne ñaan yëpp man su doon sama sago duñ ko def dara. ndax ñoom ñaar xam nga li ñu li leen jotale li sabab xeex bi ndax xam nga ko. lay xaw ma xaw ma lan moo leen jota ndax kenn waxu ma kenn wax ma lan moo jotee ak lii moo leen boole yàlla xam na ne man xaw ma. voilà voilà bu ñu bu loolu amee ci dëj bi démb ci bëccëg la kenn ñëw fii ne am ah, man atte naa leen ñaari yoon. atte naa la ñetti yoon man ne ko lu tay yow ngay atte sama doom ñetti yoon ñaari yoon maa ngi toog maa ngi toog fii ñëw wax ma ko ñëwal nga wax ma ko man du ma leen atte dama leen di yóbbu yoon ndax ñoom ñaar waruñu xeex doomi ni jaay doomi bàjjen hmm? man dama leen di yóbbu yoon yoon dina def li moom ci ñoom ñaar yëpp li war bu boobaa dinañu bàyyi xeex nii laa ki toll wallaahi waaw de 25 ans la am hmm, hmm. Ah, kenn gisatu ko kenn gisatu dafa daw kenn jàpp ko kenn jàpp ko dafa daw yaa am lam téye ndax gis ñu ko yaay ji lañ téye waaw. moom ñi nga xamante ni si ay mbokk lañ ci yéen ñoom lan la ñu wax ñoom famille beneen famille bi. ñoom famille bi man dégguma daal lu ñuy wax ndax kenn ñëwul fii ku ñëw fii day jooy ñëw ku ñëw fii day jooy ba sonn dellu kenn wax ma dara ci mbokk koo xam ne mbokk papam yi wallaahi. Daouda ndax mën nga lan nga mën a joxe ay seede ci moom. Ah, sama doom sama doom ku baax la. ndaxte xol bu baax la yàlla may ndaxte man yaay su ma ko waxee dañu ne yaayam moo tax mu wex lii damaa bëgg nga laaj seede ak ñii nekk fii. Massa ñëpp xam nañ ne metti na mbokkam doomu nijaayam daal di koy faat ci faatin koo xamante ni faatin gu doy waar la ay mbokkam sax xamuñu lan moo leen boole yaay Massa. xamuñu lan moo leen boole yàlla xam na ne xaw ma lu mu leen boole. waaw su ma waxee lii moo leen boole fen naa moo tax du ma wax lan moo leen boole ndax yëguma seen xeex bu doon saa yëg nga seen xeex bu ko defee nga toog a ñaar xale nga laagi leen lii moo leen bo lan moo leen boole bu ko defee ñoom ñu expliqué nga xam nooy jege waaye kenn waxuma yàlla xam na ne kenn wax waxuma. ko faatee def kaa jam wala def kaa xoj wala nu mu dem wax ñu ne kaa jam da kaa jam da kaa jam paaka mu ne paaka leen ko jamee ñeenti jam ci loxo yi ak ci biir bi. loolu laa dégg ñuy wax ndax fekkeew ma. d'accord ko jamee jot nga dem fi mu ko jamee ba gis sa doom wala. gisuma dara déw ma fenn déw ma ba léegi génn ma sama néeg yàlla xam ne déw ba léegi maa ngi toog fii déw ma fenn. Mm-hmm. daaw da ñaata at la am. am na 25 ans. wallaahi. jot nga xam ay atam. xam atam moo ko mag nag moo ko mag moo ko mag mm-hmm. moo ko mag amagu jabar magam sax amagu jabar xale bu ndaw la. Mm-hmm. daaw da ci lan la doon liggéey maanaam lan la doon yëngu. liggéey bu baax ndax oto bu toogee fii ñaari ñaari at te koy defar dawal ko yàlla xam na ko patron léegi la jóge fii xam na. Hmm. yaay lan biñ la woowee ne la sa mbokk daal dinay faat sa doom. Ah. yàlla baax na yàlla baax na wallaahi. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma sow. Hmm. ok kontaan naa ci yéen. maa ngi ñaan yëpp ne yëpp la sama doom ne la sama doom yëpp suuf sa sedd kawam jërëjëf ya tam kontaan naa ci yow. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Aysatu ay Aysatu lan nga ci daaw dami nga xam ne moom lañu daal di faat. magam la waaw. kon lan nga ñu mën a jox comme ay formation ci li nga xam ne moom moo xew ba ñu faat seen daaw da moom. waaw ñun de démb dañu tëdd ba ay 3 heures du matin léegi benn xale ñëw fëgg mu ne Aysatu Aysatu sama yaay ne koo la mu ne ko man la benn rax xaritu la mu ne ko meer jóg leen Daawda dañ kaa jam sama yaay ne daaw dañ kaa jam mu ne waa dañ kaa jam dafa sonn sama yaay ne daal ba deewul mu ne deewul de après si lañu sama rakk bu jigéen bi sali kooku ci la jógee ubbi bunt bi fu mu ubbee bunt bi mu daw wàcc si suuf man ma topp ko bu ma ko toppee léegi nag euh, si laa gisee sama doomu bàjjen bi si laa gisee sama doom bàjjen bi ku tudd xadi kooku di wax di naan ay mun noon nañ xeex mais waru ko woon jam mais man comprendre xaw ma ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak waaw ki faat daawuda waaw moo ki faat daal kooku mu ne mu wax mu wax si suuf mu ne mënoon nañ xeex waru ko woon jam mu wax loolu moom kooku noonu xadi waa léegi bu mu waxee loolu léegi mag sali ñu dem si sama néegu bàjjen fekkuñu ko fa après si sama beneen cousine bi si la ñëwee mu ne ñun nañ yéeg ci kaw ñoom dinañ ko lijjante si la ñu yéegee léegi bu ñu yéegee noonu ñu mënu mënatuñu nelaw parce que wax nañ ñu daaw rek dem nañ ko ba pare léegi la lendemain bu ñu yeewoo ñu wax ñu daaw de dee na mais man sama baab mu ngi nii moom gisoon na seen bi bu mu amee sama bàjjen sama cousin bi daa jamati sama raq bi ba mu sedd da kaa jam ci ñaari loxo yi jam ko ci côté biir bi xotti butit yi génn ñu ko gis man fekkew ma nit yi ñoo ko wax ñu ko fekkee léegi bu mu sama bàjjen bu mu xamee loolu mu ñëw moo sama cousine bi xadi ñu ñëw root ci suuf ay ndox sama papa gis na leen ñu root suuf di ndox di yóbbu pour raxas deret sama rakk bi léegi Babacar si la ñëwee dañu teg sama papa mooy ku jam sama rakk bi dañu sama papa taal cigarette am ëf ko sama papa mais sama papa yëgul lu xew. xamul ne doomam faat nañ ko. xamu ko parce que moom gis na seen bi mu ngi taxaw fee seen lu ma la wax nii mais xamul moom doomam lañ def loolu léegi loolu bu mu amee léegi xadi ñëw moog yaay ji raxas deretu sama rakk bi buñ ko raxasee après mu ñëwaat jël yére benn tubéy ak semis jox ko magam magam summi yére yu mu rayee sama raq bi xam nga day takk deret mu def ko ci pôle mbalit ak sama yére raq bu mu solo moom xadi moo ko dem tuuri bu dañ summi yérewoom bi summi yére Babacar jox Babacar yére après yaay ji su la ko nee demal mu aw côté bi yaay ji moo ko wax loolu waaw moo ko wax loolu mu dem waaw léegi nag bu mu demee sama mag bu góor bi porté leen plainte parce que ñun bu ñu porté wu woon yoon day def yoon day def léegi boo waxee ñu ne affaire mbokk la dëgg la affaire mbokk la mais Babacar dafa jëm Daouda ba dawra ne ko ngir yàlla baal ma maa ngi lay ñaan ngir yàlla baal ma yóbbu ma hôpital mu ne ko baalu ma la sa ndey dama lay rey sa ndey gis nga ñun fu ñu toog nii ñun dëju Daouda lañ ñu wax sama bàjjen ki ñu jaam xam na lépp. doomam ak sama rakk lu ñu jotee xam na ko waxuñu ko ba nii te gis nga ñun musuñu ko wax gis nga ñun fu ñu toog nii nii sama bàjjen dañ ko respecté jox ko cër gaa du wax a sama papa mag sama papa dañuy xuloo ci biir kër gi ba mu ne tur mais su ñun duñ ci dugg parce que ñoom ñoo bokk ñu duñ ci dugg suñu yoon nekk c'est parce que moom ak sama papa ñoo bokk Babacar même bu doon rey daaw de sax mënoon na xool si ñun ñi parce que ñun dañu bëgg yaayam ñun yaayam dañ ko def ko comme parce que ñun ñoo bokk. musuñu manqué respect faa musuñu xuloog faa sama raq dafa bëgg faa tellement ko añ sax du añee sama néegu yaay tabaxi tabaxee wu fi si suuf la tabaxee sama yaay bu ma saanee togg wala sama tante bu ko nee daaw rek añ day ne suur naa si suuf lay añee si suuf bu ñu toggulee day ñëw wax sama yaay tibbal ma ceeb sama yaay tibbal ko ceeb mu jël ceeb bi yóbbu ko si suuf mu bokk ko ñooñ sama bàjjen ku ko laal daaw la laal nga ko day dem xeex ngir kooku. bëgg ko te yàlla tax mais sama bàjjen daf ñu génnee ñun fu ñu foogeewul woon fu ñu foogeewul woon dañ la ñu génnee léegi ñun soxna si ñun lan la ñu war a de kan oh, maanaam mbay dañ ko dafa daw te police yi bu ñu ñëwee yaayam la ñu jàpp bu ñu jàppee yaayam après rakkam bi xadi taxaw si suuf nee na yaayam di yàgg foofu dañuy bàyyi yaayam loolu la bàqu wax si suuf ok. lan nga mën a seede ci Daouda. ah mën de moom mun naa man sama xarit la woon sama xarit la sama doomu ndey la woon balaa mu doon gaañu sax maam moom fekkoon na ma si escalier yi ma toog. mu ñëw sama cousin bi da kaa njëkk sonal balaa mu koy rey loxoom bi fii la njëkk ndang lii dafa ubbeeku woon mu ñëw fekk ma may toog si escalier mu ne ma yaa ngi toog ma ne ko waaw mu ne ma bàyyi wi fi jàmbur yi ngay koj ma ne ko lii laay def parce que awma connexion mu ne ma jaam ma ne ko naam mu ma sa wéy bi am na xaalis ma ne ko lan la mu ne ma sama loxo bi laa bëgg a dem ñëw ma ne ko lan ngay dox di ñëw sa sa loxo lan la mu ne ma jox ma rek ma dem ma ne ko daal man aw ma xaalis de mun ma jox ma sa téléphone mu ubbi ko sama code bi xam nga sama xarit mu ko ne ma doo jox ko sama code bi ma ne ko demal nga retiré li nga bëgg ngay noo sama xaalis mu dem retiré 10 000 te 10 000 yooyu laa yor sama compte mu ne mu retiré ko dem faj ci indi ma sama téléphone bu mu ñëwee nag jox ma téléphone ma continué lu ma doon def mu toog sama wet mu ne ma jaaja ma ne ko naam mu ne ma baal ma àq mu ne moom daaw la mu ne waaw mu ne ma solal naa la trop ma ne ko yow sama rakk nga ñoo far maag yow mu ne ma yow borom baax nga mu ne sama xarit nga mu ne mu ne naa la trop parce que sonn si ma ne ko bul wax loolu ma ko ñoo bokk benn deret su ma sonn kan laay sonn mu sama mag bi nag sama ñaari mag yi dañ maa mere mooy kii ak keneen ki mu ne boo gisee ñu mere man maa leen tooñ parce que sama mag bu góor wax na ba sonn naa bàyyi man maa bañ sama papa ak sama yaay ñëpp wax nañ man maa bañ moo tax ñoom ñu bàyyi ma mais yow moom ba léegi yaay ma ne ko ñoo bokk ma na ko man munu ma ne ko man munu bàyyi sama mbokk man noonu laa mel nit di nga bokk ne ndey ak baay mais xol yi du benn man munuma xulook sama mbokk xawma loolu ma wax ko loolu mu toog nag fu lu muy wax ak man soxna si daa doon nii la def sëgg loolu loxo bi nangu ma xool lu ma wax nii lu may wax nii mu koy wax dafa sëgg nangu ma xool man tam maa ngi sëgg sama téléphone muy wax ma koy tontu léegi après si laa waxee mu toog wax pare na wax de mu toog foofu toog ma na ko léegi la la doo dem mu ma bàyyi ma toog tuuti rek ko barke Seydina Muhammad man xaw ma dëgg la man xam naa dee am na de mais foogoo ma woon Daouda day dee barke Seydina Muhammad man ku ma heure boobu ku ma fekkoon ne Daouda dañ koy rey du ma ko gëm. billaahi wur na yàlla mais nag lu ñuy wax rek yàlla baax na man daal awma lu ma si dool jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax di la masaw. merci. papa maa ngi lay nuyu. fay naa la. tur bi naka la. Eh, Umaru Camara. Omar Camara lan nga ci Daouda mi ñu faat. Eh, Daouda man maay papam lan nga ci eh, ci ci ci faat Dawda. Eh, sama rakk bu jigéen ak doomam bu góor ak doomam bu jigéen bi ñoo rey sama doom. ci naka. Eh, te dañu ma bañ te li ñu topp baaxul ma ne bëgguma leen ànduma ak yéen ci kër gi man la ñu njëkk taxaw seen yaay ne dina ma rey ma ne ko soo ma reyee incha allah ne yàlla pour nga des àdduna bul dem àllaaxira de mu demaat loolu passé doomam bu jig doomam bu góor boobu taxaw jaaxaar man mu ne ma yow rekk laa bëgg a rey su may dem tëdd police yi tëdd ma dem police tëdd. ma ñëw yaayam li mu wax muñ naa ko waxuma dara kon ma ñëw to fii xalaat. ma ni xale bii lim ma wax waruma ko dencee noonu rekk fii ma jógu dem police def sama plainte ñëw jox leen ko ñu jël ñu dem bi ñu demee ñu ñëw rekk commissaire bi mu ngi toog may toog muy toog commissaire bi ne ko kii salal la yaayam mu ngi côté bi taxaw moom mu ne ma kii sama nijaay la mu ne salaan mu ne sama nijaay la ba mu moti ñetti yoon mu ne waaw yow noonu léegi sa nijaay bi li mu wax no mu commencé bugg a weddi affaire bi e fekkee noonu su la yàlla dimbale nekkoo ci tappale e doo jaaxale dara fekke commissaire bi xam na fu ma leen di fekke mu ne yow e li nga wax noonu su ma neexoon tey man maa la war a indi fii fekke du sa nijaay parce que am na fi ma lay fekk mu ne fi ma lay fekk looy uti foofu mu ne a ah, ah, mu commencé xool ko mu ne sama xarit la mu ne voilà kon foofu ngay xamee daal sa nijaay li mu wax dëgg la mu woo ji ñu jël ko dugal ci giri bi presque ma jooy parce que sama doom laa dugal kaso loolu waru am sama diggante am moom. Eh, menacé na la ko yaay am taxaw ma toppoo commissaire bi daw nëbbutu pour dañ ko buggoon defeere yóbbu ko affaire bi jàppul sama kol ma dem ñëw fekke beneen policier bi laaji ko ma ne waaw yéen dimbale ma commissaire bi fan la nekk am beneen policier bu xam fu commissaire bi nekk mu wax ma ko ma dem fekke commissaire bi ma ne ko ñaan naa la ngir yàlla a yeneen bi e, sama doom la man ak yaayam ñoo bokk benn baay te yéenuma ko lii dimbal ma nga génni ko ma topp commissaire bi topp commissaire bi fe mu nangu ñu ànd ci ci bureau am ñu génn xale bi ñëw teg ko mu jàpp sama tànki mu ne sama nijaay baal ma e, e, teke lépp noon kër balaa muy baax waajuru day baax yaayam baaxul nga wax e, seke man su ma taxawee léegi doom bi toppul li ñuy amal njëriñ yaayam war dafa war a topp sama ginnaaw ñoo bokk baay moom mu lànk fi mu taxaw mu ne waaye man sama doom yi sax xaw ma daa defuñu nangam comme eh, ay pour affaire ay eh, problème añi lay wax commissaire bi gëstu koor ko mu ne waaw yow ñu ñu ngi nekk ci yeneen problème yow ngay wax sama doom yi deful ni mu woo ñaari jigéen yu policier mu ne jël leen ma kii nga yóbbul ma ko fole moom sama rakku jigéen bi di wax loolu mu ne man commissaire bi ne voilà man xam naa sa doom bi lu tax muy defu lii nijaayam yow mi yaayam yaa ànd ak moom ñu ñëwee ci problème bi yow du affaire problème sama doom yi añul ngay wax ci problème li ñu nekkee ngay war a nekk ñu jël ko départ pour yóbbu ko tëj sama rakk bu jigéen la ñoo bokk benn baay bokk benn deret ma jàpp ñaari tànk commissaire ma ne ko dimbali ma soo ko tojee tëj nga ma déedéet moom sama sama yaay bi mu taxawee presque dafa saboté wax commissaire bi léegi ñun ñu ngi wax ci leneen wax moo mu ne a ah, sama doom yi saa ñugul loolu nekkul ci yoon en tant que ñu ngi nekk ci leneen commissaire bi woo ñaari xale jigéen ay ay policier ñu ne yóbbu leen ma kii fole li ma gam wax xam naa ko moom moo tax doomam bi yabu ko di def lu nekk seen kaw moo taxaw ci mbiru bi man jàpp ñaar tànkam yi ma ne ko déedéet bàyyi ko. ñaan naa la ngir yàlla yenente bi sama rakk la bàyyi naa ko ak yàlla ci li mu def après ñu ñëw bi ñu ñëwee fii e eh, du ma leen nëbbu dara kon ko yàlla dogal na yàlla indi na leen dinaa ci wax lépp léegi moom mu ngi toog ci kër gi di yàq kër gi man no waaw di yàq ci kër gi parce que indi lu bon di jàngal xale yi lu bon loolu mooy yàq kër indi ay yàmbaa ay dorog ay sangara nga gis si doom yi nga war a defar yow nga ànd ak ñooñu di leen jàppale ci loolu. xam nga waaw sama rakk bu jigéen bi moo yàq kër gi loolu la yàqee kër gi ba lii am nii am man noonu dama koo lànk ma ne ko loolu duma ko fekkee tey duma ma ko fekkee ëllëg lu ci munta nekkee du ma ànd ak yow ci loolu sama yeneen ñi ma bokkal ak yu góor ak yu jigéen ñoo ñu ànd ak moom. man fi ma nekk nii dañ maa bedd kenn ci ñëwee fii duñu ma faale sax ni ne man maa bon ma ne ko baax na alhamdulilah maa ngi ànd ak yàlla ci bonaay bi ma nekk parce que suñu waajuru bàyyi ñu ci loolu ci kër gi. kon daal papa su ma déggee ci sa ay biir yi wax sa rakk bu jigéen bi ak ay doomam ñooy jaay li nga xamante ni dañ koy tere. ñooñu la ñooñu la moom mii sama rakk bu jigéen bi moo koy jaay ak doom bi su ma waxee fii toujours mu jóg ci man di ma saaga bàyyil sama doom yi damaa xam ci lu bon la ñu nekk lii laa xamoon. taxaw na ba jaaxaar la man mu ne danaa la rey bi mu waxee loolu loolu moo indi ba ma man ak ñoo ñu dem police. ndax eh, man loolu duma ko nangu ci kër gi la koy def ci kër gi la koy def lii moo indi ba xale yi jàppante di xeexi bi rayante man sa xel su motee xel kii mot dina dina xalaata def loolu. Eh? léegi mu def loade bi mu defee yàlla dogal ñu defee loolu guddi trois heures de matin. yàlla moo ma jóguloo woon ma. moom. 3 heures du bi ñuy faat sa doom. matin la di def loolu jamante ba ñu rey sama doom bi moom mu yaaye bi sama rakk bu jigéen bi mooy yaaye xale bu góor bi muy jóg faatu muy roote ndox yóbbu raxasi deret bi ci guntu gunti jàmbur yi fële man ma taxaw fi ma xool affaire bi ma ah, waaw sama rakk bi mu ngi roote ngud guddi ndox di dem raxas ci guntu kër jàmbur. bu xamoo ne sa doom lañ faat. man xawma ko ma xam noonu konk dafa ma yab. bugguma su ma waxee foofu mu jokku di di ma saaga yeewuloo ñu nekk ci kër gi yëpp ma noppi rek taxaw ba yàgg ma wàccewaat dem taxaw ci biti gis muy indi xale yu góor yi di rooti rek yóbbu xale yi di puusu nii deret bi mu dem ba mu xam deret bi wàññeeku na doomam bu góor bi noonu jóge fële ñëw taxaw fekke maa ngi woon taxaw mu traversé sama ci eh, ci ginnaaw kuy ray sama doom bi waa mu génn nii benn si cigarette eh, mu ngi yore mu sàkk taal ko mu ko ma yëg fii taxaw bi ma taxawee rek après moom mu yëg lu gaaw yaay bii ñëw rakkam xadi la tuddu ñu ñëw dugg ci biir ñu ne ko daw acca demal mu ñëw summi kiloot bi mu sole woon waaw waaw bi ñu xamee rey na sama sama doom bi yaayam ak ak rakkam bu jigéen bi ñooñ ñoo ko dawloo ñu ne dawal léegi maa ngi taxaw di xool yëpp de kon yëguma ci sama doom bi la affaire bi de léegi mu dugg rek sol pantalon am ak beneen simis am bulo mu ànd ak rakk bu bu jigéen bi muy tudd Khady ba ci biti fii kooku ne ko waaw kon noonu acca damal moom xale bu góor bi nii la ow dem moom Khady mu yëg ci kaw ndeke de deret bi desoon na foofu da koo defoon ci benn mbalit yaay bi dugg ci néegam tëdd man yéeguma ko bi ma paree julli rek continuer dem fu may liggéey foofu la may woo mu ne day diw di def na ni ray nañu sa doom ma ne ko loolu la sama rakk bii di nekkoon di defar ndekete li muy defar noonu mu nobbu ko ñoo ñetti ñoo ray sama doom su dul loolu bokkoon naa ak moom suñu doomu su defee loolu moom moo war a ñëw fii fugal ñu jógu leen suñu njaboot bi jàppante na ba nangam am na kon su ko nobbee rek li mu waxoon ci man la jaarale si sama doom bi. kon doon tëkku naan la dinaa la rey. daf may rey léegi sakk na pexe munu ko mu jaarale ko sama doom loolu la def. Eh, loolu la def man man de wax dëgg yàlla demuguma ci hôpital bi police laa dem foofu laa yëpp e eh, am dafa am sama benn doom bu nekk foofu ñooñu ñi ñoo dem foofu di toppatoo affaire bi waaw ñoo ñoo dem naa fole noonu police ñu laay ma wax li ma xam daal bindi nañu affaire yi yëpp daal ma dellu saati kii maa ngi toog fii ah, kon du ma leen nëbbu dara kan ma ne la du waxtaan man parce que moom mooy nit ku bon kii moom mooy tege lu bon bii ci kër gi ñu suñu dëkkandoo yi xam nañu ko dara umpu leen xanaa ku nangul wax diggante moom ak yàlla loolu rek moo yàq suñu kër ñu fu ñu toll ni tey sax am nañu kër sax génn ci koñ bii wala dakaar sax moom mi moo ak njabootam bi kàcce njaboot yi di lay yàq rek loolu mooy seen seen travail ci kër gi ma ne leen noonu man loolu su may des ma dee damay dee du ma ànd ak yéen ci loolu ba aduna bi jeex ñoo ñëpp ñu ngi fii dana danañ ma bañ ku doo gis kenn kuy ñëw fii di ma nuyu maa nekk seen mag ñooñ ñëpp kon faale wu ma ko moo tax ñu def lii ci sama doom ba tey dara ma damaa yokku fi ma nekkoon rek li ma yàlla dogal na noonu yéen yoon dem na bi mu demee ci seen loxo mbiru bi yëpp mu ngi ci seen loxo waaw mu ngoog su du loolu du ma leen nobbu Eh, danaa danaa def li ñu def de parce que ñu xam ndaa métti na wala méttiwu ah rey sama doom yow nga ñëw di jaaraaloo ci kanam eh, ci kanam ki nga ray doomam di di jéem a di jéem gaare gaarewaale ah xam nga loolu de ah du yow du man du keneen aha sama eh. doom bi sama doom bi du ma la nobbu moom yaayam moo ko xàcce ba ñu téye ko complètement mu ñu ànd foofu tere naa ko beteraati tere naa ko beteraati ñu ànd ak ñooñu ñu yàq ko complètement même su yaayam toggee fii day ne soxalul togg yaayam bajee ma bajee naam li mu togg foofu loolu la soxla loolu faw loolu la yore woon kay lool la soo gisee lii rek loolu la yore woon ñi fi nekk yëpp ñu ngi toog fii loolu la yore woon dafa dafa jaare ko gunt bu nekk pour man mu téye ma amul moyen nga mu fexe ba xàcc sama doom bi yóbbu ko ci ñoom xam nga léegi man tu ma nekkul woon ki nga xam daal ku dul naan ataaya ma àndaa ñi naan ataaya bu yàggee ba ataaya bii jàpp ma lan lay def ah waaw yëf yi la demee de. waaw sama doom bi moo yàq sama doom bi léegi ñu jaf nii sama doom bi encore mujjantel bi ñu xamee taxaw naa ci loolu li ñu bugg a def ci man mënuñu ko ñu te delluwaati rey sama doom bi ah ne ne encore noonu doomam bi na daw ah waaw waaw non jotuguñu ko ñu ngi toppatoo affaire bi xëy na nee na ñu la lañu ko war a jotu xëy na ah. waaw hmm. waaw waaw mm-hmm. ah, yéen itam jërë ngeen jëf mm-hmm. jërë na ci yoon ñaan naa leen de ngeen taxaw duma leen ci nobbu ndara kër gi kon ko yàlla def na nii la demee moomu ci lu bon la nekke fexe leen lu ci mun a def ci kër gi rek ñu def ko suñuy jaay kër gi ñu jaay ko ku ci ku ci am fukki dërëm am fukki am dem awti baraaka am nekk ci moo gën ñu nekkaatu fi su loolu mbir bi day gën a takk day gën a kànnaate rek. sëñ bi maa ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Simiti Camara laa tudd mais euh, man dañ may wooyee sama ñoom Baba lañ may parce que sama lañ ma tuddee waaw may magam maay magam waaw. man li ma mën a wax daal mooy leen du bari. daanaka sama papa wax na lépp te it bi tamit wax na lépp sama sœur bi tamit wax nañ lépp man damay jël lépp teg ko ci loxo yàlla ne lu waroon am la lu waroon am la te mënuñu ci woon wees wax dëgg fa yàlla euh, léegi man lenn rek laay wax na yoon def liggéeyam wax dëgg fa yàlla man awma leen lu ma ci yokk daanaka lu ma fi waxaat tamit répétition la rek parce que ñoom expliqué nañ lépp ni mu demee li tax man mënu cee wax parce que dëkkuma fi man damay ñëw de temps en temps gis maire bi gis paa bi gis famille bi dem kon xam nga ni lu ma fi wax rek damaa wax lu ma neex waaw moo tax ma ne na yoon def liggéeyam dëgg la ay mbokk lañ ay famille lañ na yoon def liggéeyam man loolu rek laa ñaan waaw sama frère boobu maa moom maanaka daanaka man ak moom dama dañoo dem ba rusante parce que ci fréquentation yi muy fréquentation loolu tax ma ko doon tere maa moom dañu doon coow guddeeg bëccëg pour rek yooyu yëpp arrêté maanaam da doon yoo xam ne baaxul. mais fréquentation bi du kenn ku dul ci biir kër gi rek kër gi c'est le bordel kër gi c'est le bordel. nga wax loolu. parce que kër gi képp ku am yambaa booy tux ci kër gi nga koy tuxee képp ku am lépp lu lépp lu nit lépp lépp lépp lu nit am ci lu bon ci kër gi nga koy indi man moo tax ma tuxu ci kër gi dem. pour nekk pour raison de sécurité su ma amoon lu ma mën a yóbbee sama yaay ak sama pap wallaay duñu fi fanaan moo tax nag ma ne lépp lu yàlla suñu borom di def rek man damay ñaan yàlla. sànq dégg naa ci say biir wax nga lépp lu waay di def maanaam lépp lu waay di def ci lu bon jaay yàmba wala tux yàmba ci biir kër gi ngeen koy defee. loolu dama koy wax haute kër gi mooy base bi policiers xam nañ dama xamul lu tax nag mais ñoom comprendre nañ. nañ def seen liggéey nañ dimbali sonn nañ torop wallaay azim te xale yaa ngi màgg xale yaa ngi màgg nañ dimbali ci suñu kër gi boroom kër gi ba muy teg ay birig ak ay ak ay ak simaam ak i suuf pour ay sëtam la tegu ko fenn pour ay jàmbur ñëw ci kër gi di def ci n'importe quoi kër gi c'est bordel wax dëgg duma la ko kooku man amul lu ma ciy nëpp xaar yàlla ba mu daj suñu kër rek la auto police di taxaw. fii kese rek la autopolice di taxaw ñëpp doy nañ ma seede loolu waaw man daal yàlla na man daal dama bëgg yoon def liggéeyam loolu rek laa bëgg. waaw booy la boo xamante ne wax dëgg fa yàlla du bëri kersa daaw de mën na def dara léegi maak moom ñu coow daf may woo ne ma baal ma àq loo ko conseil day sëgg nit la koo xamante ne bëgg na ay famille gisoo sama sœur bi li mu doon wax léegi xaritam la ñoom ñaar man mii sax mën naa ne. comportement moo tax maa ngi moom mënuñoo jubóo parce que xam nga ni ma bëgg mu mel ak moom yoon bi mu bëgg a man maa moom moo tax du ñu mën a jubóo dama dem benn moment après ñu commencé man ak moom mooy loolu mais après nice bu ma ñëwee fekk fi ma ñëw seet si maire bi day ñëw nuyu ma dem lu baax rek laa xamal franchement parler. ndax jot nga miinanteeg sa doom bàjjan bi ko faat. bu baax mbay Babacar xam naa ko bu baax moom tamit wax dëgg fa yàlla respect rek la ma yàgg jox ndax bu ma saan joteeg fii. yaayam wala mu joteeg ay nijaayam fii man su ma ñëwee su ma ko nee bàyyil day bàyyi. Mhm. mais xamu leen lan moo ko jotaleeg Daouda ba mu faat ko. xam na ni xaw ma ko. wallaahi azim ba nii may wax yoon yow man ba léegi xaw ma ñoom ñaar lan moo leen boole man ba léegi loolu jaaxal na ma waaw ku ne nag mu ngi may woo di wax mais man duma sukkandiku ci loolu parce que yàlla rek a xam. mooy li ma la wax rek yàlla xam na ni man xam nga ko dëkkul ci kër gi doo xam li ñuy expliquer yëpp li nekk ci kër gi noonu la demee. merci beaucoup ñu ngi lay jaale bu baax di la masa beaucoup man de li may ñaan rek lenn la sama dernier kàddu yoon nañ ñu dimbali ñu def seen liggéey nañ ñu jàppale ci suñu kër gi sonn nañ trop xaar yàlla ba xaar yàlla daj buntu kër gi rek la auto police di taxaw te sama maam liggéeyul loolu fa mu tëdd dara neex ko ci ay sëtam yàq këram man mii looloo tax ma tuxu génn kër gi du leen dafa ñaaw dafa rafetul ñu dañuy génn du ñu mën a siggi koñ bi doy nañu seede loolu du question ni ma ko wax de koñ bi doy moo tax damay ñaan yàlla rek yoon def liggéeyam nañ ñu jàppale waxuma ay kii de fii mooy base bi fii la ñuy defee lépp lépp lu ñu bëgg def fii lañ koy defee si biir kër gi fii amul du feneen du feneen fii la nañu ñëw dimbali ñu ci suñu kër gi sonn nañ wallahi azim ñu ngi mel ni ñun moomatuñu kër gi. ñu fa xam ne dañ fee dëkk ñu dul seen famille bi wala. diggu li ma la à part locataires yi ñun ñoo fi dëkk mais. maanaam ñii di jóge ci mbedd mi te dëkkuñu kër gi bu ñu amee yàmbaa bu ñu tux tuxee ko ci kër gi bu ñu amee yàmbaa gu ñuy séddoo séddoo ko ci kaw terrasse bi bu ñu amee lépp lu ñuy jaay indi ko ci biir kër gi moo dul yoon te yow dëkkoo ci kër gi moo moo kër gi sa baay moomu fi dëkkoo fi lu tax ngir yàlla nañu police dimbali nañu gendarme dimbali nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñu ngi leen di ñaan nañu ñëw ngir yàlla jàppale ñu lii rek laa amul lu ma wax jërëjëf mbokk internet yi gannaaw nii lañ leen ko waxee ba tey jile ñu ngi file ci Grand Yoff gannaaw ba ñu yéegee ci kaw ki nga xamante ne ni moo di uh, kër Daouda mi nga xam ne moom la ñu daal di faat wàcc nañ nag ci kër ki nga xamante ne ni mooy ki nga xam ne yàlla ci loxoom la jaaralee génn ak àdduna uh, Daouda ñu ngi toog ak frère ak sëram nag dañ koy nuyu waaye tamit jaale ko li nga xam ne moom la ñu bokk bu ko defee ñu daal di ko dugg si waxtaan bi soxna si maa ngi lay nuyu. maa leen di fay. tur bi naka la. Fatou béy laa tudd. Fatou Beye lan nga bokk ak ki nga xam ne moo daal di faat Daouda sunu ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay Daouda tamit sunu doomu nijaay la ndax seen papa mooy sunu taawu kër mook sama ñoom yaay ñoo bokk benn papa waaw. gannaaw seen euh, mag ji nga xam ne moo daal di faat Daouda mi nga xamante ni rakkam la lan nga ñu mën a wax comme information ci li nga xam ne moom moo fi jot a xew. waaw man information yi ma mën a wax mënu ma ci wax lu bari parce que man dëkkuma fi Thiès laay say man démb si suba lañ ma woo wax ma li xew d'après liñ ma expliqué dañoo jote woon jote wuñu sax ndax ki nga xam ne moo dee tey moom moo ko doon topp rek tout le temps di ko menacer. moo doon menacer kan da ki faatu. kee yambar la amul doole amul fit. mooy waaw moom mooy ki rey amul doole amul fit xam nga bu fekkonte ne am na fit kon tout le temps buñ dajee dañuy xeex mais du doon ay kalaame mais heure bu ko rombee mu def ko dara day ñëw ba ci yaayam kalaame ko ki dee tey jii sunu deret la. ci kaw la dëkk de nijaay suñu nit doomu nijaay la ci kaw mais dafa mel na yaay kii nga xam ne moo ko rey moo ko jur parce que ay yéreem a ngi nii ki dee ay yéreem a ngi nii lii sa ko sam la lépp fii la koy defee xam nga kon loolu kon kii bu fekkente ne yàlla dogal na ba kanam jaar ci ay loxoom xëy na lu yàlla tuddoon la rek mais kii rey nii boo génnee ci mbedd bi nga taxaw foo taxaw laajte dañ naan la amul fit ñemewul kër gi bu ñuy rey ginaar sax du moom lañ moo leen koy reyal te pourtant moom moo fi doom ju góor ju mag mais amul fit du génn xool nit ñemewul mbedd bi sax du fi taxaw lu bari tout le temps mi ngi néegam ci kaw kon lii bu amee nii ndogal la rek dëgg la metti na mais moom direetam la tuur ndax ki mu rey doomu nijaayam la bu doon sunu sago tey ñun Babacar mi nga xam ne moom moo rey moom mooy nekk morgue ba ndax loolu ba amoon xëy na problème yi am yëpp du am ndax dañuy jàpp na rek mbiru yàlla la mbiru yàlla la mais nag nit ñi ñoo yamul te xel tamit yemul te ñun bu doon suñu sago lii du am ñun baaba ñun ñun daaw da suñu deret la te ñu ngi naan fee yi fii la amee ci kër gi euh, ñu ngi naan tamit xam nga bu dara amee rek tout le temps da dégg ay rumeur ñu ngi naan ci néegam la ko fekk muy nelaw mu jam ko loolu lépp amul kenn mënul cee wax dara lu dul kii dee benn xaritam la toogaloon kese fii ci li ñu wax Babacar moo génn mu def kon d'habitude ni mu doon def baaba kër dugg ñëw kalaame ko yaayam ni ko wax ci diw yaayam ne ko ah bàyyi ko mu saaga saagaru takk fenn bàyyi ko mu dem bàyyi ko rek nga dem sa yoon baaba kër génn di dem di jëndi reer moom moo ko topp kër mooy kii rey moo moom la moom moo jotee ak moom mu dugg boole ko ak yaayam yaayam ne ko bu ay saaga takkul fenn bàyyil noonu rek nga dem moom moo génn di dem di jëndi reer ki ñu rey nii tey xaritam bi mu toogaloon mun na fee nekk wax la moom moo jug topp ko topp ko ba ci bopp ko bi fa la ñu songoo di xeex ba lii am am ci Babacar fu mu toll nii ñun ñu ngi koy seet ñoom bu ñu taxaw ne Babacar ñun ñoo ko nëbb ñun loolu duñ ko def parce que Babacar bu reyee tamit suñu bokk la rey kon duñ ko làkk benn yoon Babacar duñ ko wax mu daw Babacar moom jotul ñëw fii sax boo bëggee dégg dëgg Babacar ba démb mi ngi woote xam nga lu tax tàppet la amul fit moom boo gisee mu daw xam nga lu tax mu daw dafa ne pour moom xale bi mu gaañ bu jugee da koy gaañ gaañ bu mën a gën a metti déjà moom woote na di laajte mbaa gaañ bi gaañ ba mettiwul moo lay wan ne moom xamul yëgu ko mi ngi laajte naan mbaa ma ko gaañ bu metti kon xam nga ne kooku yëgul li xew Babacar jugul pour ray ko xëy na yàlla moo ñëw yàlla moo ñëw yàlla moom bu ñëwee moom kenn mënu ci dara peut-être yàlla moo ne woon deewu daaw la tey ci loxoom lay jaar kese mais daaw da ñun moom ak ay magam faa mooy seen yaay mooy yaay kii rey mooy seen yaay ñoom ñëpp fi la ñuy fi ñoom ñëpp fi la ñuy fréquenté ba ci déggoo ma ne la kii dee ay yéreem a ngi nii bagage nekkul seen néeg ci kaw. du lekk foofu du naan foofu fii lay lekkee yaayam mi ko jur sax mun na laa seede loolu buñ ko yàkkalee añ ci kaw danaan ko ci wax faa laa koy lekk jee fii lay wàcc lekkee ko fii ay yéreem a ngi nii sakos bii moom lay wëkkoo sakosam a ngi nii kon xam nga ne kon ñooñu kooku ñun mënuñoo complot di ko rey wax day rafet. ndax seen frère bi bi mu demee ba woote yëg nañ ne yaayam la yoon teg loxo wala. yëgu ko yëgu ko boobu yaayam yoon tegu ko loxo parce que boobu dafa woote di laaj mbaa gaañ gaañ bi rëyul boobu ñoom fee yi muy am nee nañ yaayu xale bu góor bi fekk na lépp mooy yaay ki rey yëgul dafa doon nelaw ñoom bruit moo leen yee ñu jug moom ak san beneen sœur bi mooy magu baabakar ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kooku moo jug ñoom ñaar ak yaayam daw dem bu ñu demee fekk nañ déjà ñu yóbbu euh, blessé bi fekk ñu ko foofu ñoom bu ñu ñëwee fekk ñu yóbbu blessé bi mais deret am na foofu tuuru na fa seen deret la duñ ko bàyyi fi mbedd bi ku romb xool par la suite la ñu ñëw root ndox dem raxas deret ba mu set daal di laajte ki ko yóbbu fan la nekk mu ne leen sami mu fekk leen foofu bu muy dem mi ngi ànd yaayam yaayam topp ci encore dem bu mu demee ba egg buñ ko xoolee moom sama sœur bi moom la ñu woo xam ne moo gën a dëgër moom la ñu expliqué ne ko xale bi dem na mu ne leen ndax mën naa koo xool ñu ne ko waa mu dugg xool ko ndeysaan génnaat bu mu génnee mi ngi ànd ak yaayam ci biir oto bi mais waxu ko ne xale bi dem na faa yëgu ko man bi dëkk Thiès sax maa ko njëkk yëg ay 9h ndax tension bee tax par la suite si la ñibbisi ñu ñibbisi ñëw tëdd bu mu tëddee ci la sama sœur bee laajte bu mu laajtee ci la ko nag keneen ki doo kii demoon police euh, ki demoon hôpital ci la ne ko bul yuuxu damay bañ faa yëg ko mais daaw da dee na xam nga li ma la wax kon xam nga moom buñ nee ñoom yëg nañ ko ak ñoom ñoo ko rëccal kon dañoo juum xëy na nag metti na xëy na seen xol moo jeex rek moo tax ñuy wax lu ñu xamul mais ñoom xam nañ ne faa du déem a def seen doom dara. problème dafa yàgg di am ci seen diggante ak seen nijaay ji nga xam ne moo nekk ci kaw. foofu moom bëgguma cee ñëw foofu moom wax dëgg yàlla bëgguma cee ñëw bu ma sañoon daal ñu yem ci lii rek. waaw waaw ndax moom bu fekkee problème tamit daan naa am suñu diggante ak moom moom xale bu góor bii rey musta am ak moom problème man moom fekkew ma du ma wax lu ma wóoru parce que nee naa la nekk ma fi maa ngi Cees mais tout le temps bu bu sama nijaay bu jotee ak moom ci kaw du réagir am na ñeneen ñi fi nekk bu jotee ak ñoom dañuy réagir mais moom du réagir day wàcc ne yaayam faa mu ne ko naa mu ne ko wax sama gi sonal na ma kon xam nga ne kooku du bandi dafa sës nag daw na wax dëgg yàlla ba sës ñi boo génne ci mbedd bi ñu ko fekkee man fekkee ma tout le temps dañ naan ñoom ñaar fu mu ko fekk da koy menacer da koy tooñ tout le temps waaw ki ñi rey tout le temps bu ko fekkaan mu toog sama sœur bee démb la may wax nee na moom ñoom ñaar ñoo bokku ndey ak baay nee na mu fekk na ko ci kaw ki ki dee tey tiim ki ka rey di ko pesate amul fit ndax ñoom ñaar rek a nekk ci kaw bu ko kii fekkee woon du réagir te ki bu mu fa demee sax bu mu ko fekkee nee na waxul dara dane ko boo fii mënoo ma fee wàcce mais boo may dóor ba suba du ma fay fekkaan na ko encore beneen jour muy fóot mu kàjji siwo bi siwo bi xar mais songoowuñu ki moo doon def ki rey def loolu mel ne ku ñu xabtalu peut-être nag nii la ko yàlla jaar mun na am yàlla dane woon Babacar mooy doon malaakaam moo tax mu topp ko rek lii la mais du leneen naka ngeen yëgee ne Babacar daal dinay faat magam ji waaw ñun noonu lañ ko yëgee man dama toog dama xëy man xëy naa ba man ma xëyee dèjà dama ko yëgoon sama yaram ndax xëy naa xëppoo ndox def li may def mais mënatuma def dara dama waroon a bale balew ma dama dugg si saal bi rek toog ba sama borom kër sa fekk na ma foo ne ma waa yow ngay def fii nga toog rek fixé benn place man ko ah dara ci laa jug defar kafe naan doo koy commencé di defar di bale di defar noonu laa déggee sama téléphone bi sonné ma dem décroché dégg muy jooy ma ne ko waa lan la mu ne ma ah am na naqar bu xew sunu kër encore ma ne ko wala lay wax nii yaxara ci ne ma Babacar de moo doon jotanteeg ak Daouda ba jam na ko di ba Daouda dee na nii nii laa ko yëgee nii waa kay waa kay jërëjëf maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay tur bi naka la Xadi Kamara Xadi Kamara lan nga bokk ak xale bu góor bi nga xam ne moom lañ daal di faat ki ñu faat sama cousin yi la ki ko faat nag sama mag la maa moom ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. d'accord euh, Khady Camara gannaaw ba ñu tàllalee micro ñu ne sa mag ji gannaaw ba mu fàtte ba noppi yow yaa nekk ki nga xam ne yaa ko cel pour mu daw dem lan nga ñu mën a wax ci leeral ci li nga xam ne moo xew. waaw oh, affaire bi nu mu demee ñoom ñaar yàgg nañu am ay problème yu sew yàgg nañu am problème yu sew ku dee tey mu ngi si dëgg ñun ñu ngi si ay fen mm-hmm. te ki nga xamante ne moom lañu rey suñu dereet la ñoo bokk. mënuñu ko sosal mënuñu wax ci ginnaawam lu ñaaw parce que dem na ba pare ñu nit xamuñu fu ñuy mujj ki ko rey tey doon sagom du ko rey du ko rey ndax man du benn du ñaar ma fekkee ki nga xamante ne moom moo tëdd tey di mbéj sama mag di mbéjati sama mag ba kay saaga ndey man mii sax rakkam ma bëggoon ci dugg mënuma xadi bu ci dugg daar man ak moom ñoo bokk deret su may dóor ba suba du ma yëkkati sama loxo di ko teg si kaw daara parce que man ak moom ñoo bokk daara jaaraat fu bon ma mer di wàcc sama yaay yéeg sama yaay bu mu yéegee waxut ak doomam daawra la dem ki nga xamante ni moo dee tey si kooku la dem di wax ak moom comme ñun lii buggee wuñ ko woon nii waaw bu ñu waxee nag mën maa rëccal Babacar waxuñu lu am waxuñu lu am ndax kooku bu muy dem xamul ni sax ki mu jam dee na su ko bëggoon rey du ko jam si loxo su doon rey ko rek la bëgg du ko jam si loxo ci loxo la ko jam jam ko ñeenti yoon dégg naa ñu naan dañ koo jam ñeenti yoon dégg naa ñuy wax dañ koo fekk si kaw terrasse muy nelaw mu jamati ko fa loolu yëpp amul dañuy wax rek te yàlla tam dégg naa ci information bi ma jot nee nañ da koo jam ñeenti yoon mu jëntal gi daa jam daal di ci ne ko xaaral ma rey sa nàngam ndey ma ne man taalibe Baay laa balaa dara man taalibe Baay laa te su ma nee taalibe Baay laa comme royukaay laa ndax ñun Baay lu ñu leneen lu dul dëggu lu ñu leneen lu dul dëgg ndax moom léppam dëggu la comme su ma toogee fii ne man taalibe Baay laa ba pare di fenn comme man bokkatuma si njabootu Baay te man bëgguma leneen lu dul doon taalibe Baay doon taalibe bàyyi rek moo ma ñor comme su may wax fii tey damay wax si baat damay waxee si baatu Baay parce que moom moo waxoon samay taalibe ay royukaay la ñuy doon sama mag moo rey diis na torop ma koy wax ndax ñoo bokk ndey ak baay moo nàmp jox ma sama mag la waaye du woon coobareem jugul woon pour rey ko histoire bi nii la demee man si même jour bi mardi bi damaa demoon Tiwaawoon ma ñibbisi sangu ba pare dugg fii maa ak sama mag bu góor bi nga xam ne moom moo def lii tey maa moom ñoo jiitalante muy kalaame sama yaay xale bu góor bi naa ko wax si diw gis nga mu ngi may saagawaat te si semaine boobu noonu fekk na ko kaw terrasse ba muy fóot mu kajj suyom suyo baa ngi nii si biti soo leen bëggee soo leen paree ma wan leen suyo bi mu daggati suyo ba sama yaay di ko wax daawra suñu suyo bi nga toj nag waaye waxu ko ba tey daawra yàgg Babacar lan ngeen jote ba nga toj suyo da ne ko daawra suyo bi nga toj mu ne ko bàjjen dinaa ko fay ndax sama yaay bàjjen la si moom comme xam nga kooku ñoo bokku dereet baa bu mu kalaamee daawra ba pare génn di dem du matin presque deux heures lañ jàppante jàppante sa baaxa daa génn di dem jëndi reer jàdd si terrain bi déedéet yaa ngi foofu ñun ñoo ko doon raxas am na yu des foofu soo leen demee di ngeen ko fa gis histoire bi du si kër gi xëyewul si koñ bi si jàddukaay bi la xewee bu mu demee jàdd xale bu góor bi moo ko dab ki ñu rey tey moom moo dab te lii du suñu wax parce que man fekkeew ma waaye ki ma toogaloon moom moo nettali lii billaahi wallaahi taalaahi daadu mu ngi si dëgg tey ñun ñu ngi si fen du ma toog fii di ko sosal parce que ñoo bokk benn deret sant bi mënuma ko dindi sama estere mënu ma changer sant bu fa nekk moomat bosam naka noonu bu ñu jàddee ñoom ñaar ñu jàppante sama mag bi jam ko mu ko jamee mënoon na daw dawul de daa ñëw fii yee sama yaay ne ma ne ko rey naa kii jam naa daaru ñun ñëpp ñu jugandoo man ak sama yaay sama mag bu jigéen bi ñoo jug daw dem yaa ngi dégg bu ñu demee fekk yóbbu nañu daaw da Daouda ko yóbbu nañ Daouda tamit ñu laaj ko ko yóbbu ñu wax ñu benn xale bu góor bu dëkk si koñ bi. yaa ngi dégg ñun jàppee ko woon sax jam bu metti parce que si loxo bi mais dërëb dafa bari fa ba man Daouda ko mu bokkaat ndey ak bàyyi magam bu jigéen Aysatu dégg na ma may wax Babacar waru woon def lii Daouda Babacar xoolal nu mu duuree deret lii laa wax. billaahi wallaahi lii laa ma ne baaw ka waru woon tuuree nii déretu daaw ma ne sama ñaaw sama ñam yaay raxas leen déret bi lii déretu daaw baaw ka di ko def nii moo xuloo ak sama yaay ñu raxas déret bi dellu tëdd ñu tëdd tuuti am benn xaritu daaw bu ñëw wootee bu ñëw ne ni bu ñëw yéeg si kaw si yaay daaw da daa di ne daaw da dafa am ku wootee fee hôpital ne daaw dafa sonn ni ko nañu ñëw ñu ne duñ ko laal tànk yaayam ñëwul waaye xam naa boobu fekk gaañ na ba mais bëgguñu ñu ko waxee woon noonu yaa ngi ñu fëgg yaayam yaayam nee na daaru su bëggee mu dee foofu waaye moom du dem yaay daawda moo wax lii raqu daawda wàcc raqam bu jigéen moo wàcc bu ñuy wax salimatu moo wàcc sali bu mu wàccee mu ñëw fëgg néeg bi ma ne ko sali lan la mu ne kii yu ne daaro sonn ma ne sama yaay jugal ngeen dem yaag yaxara ma ne yaxara xaalis bi nga yoroon yëpp yóbbu ko billaay ñu dem ñoom ñaar bu ñu demee ñoom ñaar man mu wëlbatiku tëdd mënuñu nalaw mënuñu nalaw parce que suñu dereet la ñu nekk fa ba su lu yàgg après ñu ñibbisi avant ñoom ñuy ñibbisi sama mag bi duggaat na si néeg bi fekk jéppi naa ko mu may wax xadi ma ne naam sama mag bi faat aal ma téléphone ma ne ma ne ko aalu ma la dëmb bi du ma la aal sama téléphone yow ku bon nga xoolal ni nga def deret xoolal ni nga tuuree deretu daawda bi yaa ngi dégg joxuma ko sama téléphone moom dafa am benn gel bu nekk si néegam si kaw di fay fanaan mu ne ma comme yeewul ma bintu ndax heure liggéeyam jot na heure boobu man laa gëj a gisante ak Babacar sama téléphone mu ngi ne appel man damaa yéendoo woo Babacar numéro bu nekk si police ba bu ñu koy localiser man maa ko fa joxe numéro xale bu jigéen bi ñu jàpp tey muy gelam man maa ko fa joxe tey comme xam nga ni man bëgg naa ñu jàpp ko comme xam nga ni man laa bëgg naa ñu jàpp ko mhm. soo li may was ngeen dem ba si police ba maa fa man maa joxe numéro mhm. man maa joxe numéro maa joxe numéro gel bi nga xamante ni moom la nekkaloon mhm. parce que man maa ne gel bi moom dina xam fu Babacar nekk parce que Babacar téléphone bu muy dem yóbbaale wu ko gel bi moo ko jox téléphone man ma woo gel bi ba sonn Babacar xamul sax ni ko rey na nit xamu ko kon li ñuy wax que ne Babacar bi mu fàttee ba noppi yow yaa ko jox yére yi mu changé nga jël yére bi taxoon deret daal di koy sànni ci euh, mbalit bi loolu yëpp amul ñoom ñi la expliqué lii ñoom ñëpp kenn fekkewu ko ñoom ñëpp amul kenn si ñoom ko fekkee daaw da bi nga xamante ne lii am na man bi ma yéegee na wax si diggante ak yàllam rek man maa yëg ne gel bi na wàcc heure liggéeyam jot na maa wàcce gel bi topp sama ginnaaw gel bi mbuusu yéreem la yor parce que dafay xëy liggéey Bintu Diop kooku doomu jàmbur la dafa yor liggéey dafa yor doom ma ne ko wàccal mu dem liggéey man lu mu jam Babacar Babacar li nga lu mu jam noonu daara métti na ma ba si ba ma wax gel bi yow mënoo bàyyi Babacar xoolal Babacar nu mu def nu mu def kii te pourtant mag Babacar ñoo bokk ndey ak baay Daouda sama cousin dong la mais man si Daouda laa far parce que Daouda ci tabaski bii rek lu ma may sama sama mag bi ma bokkal ndey ak baay mayu ma ko comme ñun bañuñu Daouda mhm. suñu sañoon lii du demee nii ñu sañoon duñu wax Babacar moo rey Daouda loolu ñaaw na trop mhm. comme man du ma jëlal du ma du ma kii Babacar du ma nëbb Babacar mhm. du ma nëbb Babacar parce que moo ko rey du ma nëbb Babacar moo ko rey bi may wax diis na sama mag la ñoo bokk ndey ak baay waaye moo ko rey moo ko rey problème bi mooy nii ñoom ñaar yàgg nañ jot ay histoire yi ndaw yàgg nañ jot ay histoire yi ndaw ay e histoire yi ndaw yàgg nag ñoom ñaar dong ñoo des ci kër gi mm-hmm. waaye mënuñu juboo mm-hmm. Babacar moom ak Daouda fuuf waaye Daouda man taxaw naa mu ngi ci dëgg man maa ngi ci fen fu muy saaga Babacar ma taxaw di ko fekkee mm-hmm. comme histoire bi ñu demee nii man maa nëbb Babacar lu mu reyee Daouda sànni ko loolu amul loolu su nekkoon tamit am na police yi defuñu ndax man démb police balaa yendu ak sama yaay comme rumeur boobu suñ ñoom suñ ko déggoon dinañ ma fa téye comme ñu téyee sama yaay ñoom seen liggéey ñu ngi koy def sama yaay la ñu téye foofu te ñun lu ñu téye sañ sama yaay ñun meruñu si mhm. parce que xam naa ne moom su yéegee ni yaayam la ñu téye ak nu mu bëggee yaayam mhm. dina ñëw toog palaasu yaayam mhm. ak nu mu ñu bëggee dina ñëw toog palaasu yaayam ñu jot tamit que ne biñ téye seen waajur bi loolu tamit yëpp ay fen la loolu yëpp ay fen la sama yaay ay magam a ngi nii toog ay magam a ngi nii toog ñoom ñëpp dañoo gëm yàlla ñoom ñëpp moom lañ fa ñoom ñëpp foofu lañ nekkoon ba une heure du matin ñoom ñëpp foofu la ñu nekkoon amul kenn ku wax loolu nañ ko fa téye du yàgg loolu ñee ñoo koy ñoo koy décider ñu ñun loolu liggéeyu police la du ñun dafay yàgg wala du fa yàgg loolu police moo ko xam du ñun rey bi nag am du ñun tamit baabaka du coobareem yàlla moo ko jaarale si loxoom d'accord euh, ci ay leeral tamit ci li nga xamante ne nii moo di kër gi ngeen nekk ndax jot nañu ko ne kër gi maanaam lépp lu bon lu ne fi lay xewee ay jaay yàmba wala seddoo yamba wala tux yamba lépp fi lay amee lan nga ñu mën a leeral ci loolu tamit. loolu ñu la ko wax ñoom ñoo ko xam ñu la ko wax ñoom ñoo ko xam ñun xamuñu ko ñu la ko wax ba xam ne loolu lu bon la ñoom ñoo la ko ñoom ñoo ko xam comme ñoom nañ la expliqué nu mu demee man loolu mënu ma si wax ndegam ñoom ñoo ko wax mënoon nañ si leeral mhm. waaw. d'accord merci beaucoup. tur bi naka la. tur bi Amadou Camara Amadou Camara lan nga ci Babacar Camara mi nga xam ne moo daal di faat Daouda. Babacar maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay. maa lan nga ñu mën a wax ci ay information ci li nga xam ne moom moo fi daal di xew. waaw ah, man leen rek laay wax si naa ngi suñu ñaan Babacar sama mag la naa nga ku ñu rey nii tamit sama mag la. waaw mm-hmm. ah, te man maa doon te man maa doon nit koo xam ne nag fii si kër gi. muy mm-hmm. moom. muy Babacar muy Daara donc ñu ñaa ñëpp dañu ma jox cër. Mm-hmm. donc amaan na amaan na zoo noonu amaan na zoo boobu noonu naa ko man fekkee woon naa ko coow naa ko lii nii naa du am parce que Babacar su ma waxee damay déggal mm-hmm. Daara su ma waxee damay déggal. yàgg nañ coow mm-hmm. man ma koy fekkee damay xëcc Daara wax ak moom xëcc Babacar wax ak moom. mais lii yëpp soo gisee. mais yàgg nañ coow li noonu mosuñu coow ba gaañante te Babacar moom. nit moom li nga xam si li nga xam si nit kese ngay wax waaw te doonul ni que te doonul ni que comme lu may wax ni comme damay faral Babacar mhm. non non faral ma baax parce que Babacar sama mag la Daara sama mag la mhm. waaw mhm. mais Babacar moo doon nit boo xam ne ni que comme Babacar du tooñ dañ koy tooñ gis nga man gis nga man barki Seydina ma muy Babacar muy Daara muy keneen ak keneen kenn yebbu ma si benn affaire comme boog dam leen jox cër ñu jël cër jooju delloo ma ok naa ba yéen wax yi naan ko ñoom dañu ma ko wax. Mm-hmm. d'accord waaw ak waajuram bu jigéen dañu mas di menacer paa bi contraire paa moom moo yàgg menacer loolu. paa bi bi moo yàgg menacer. fu mu paa bi fekk na naa ko naa na ngay mën a fekkee nit kuy nelaw. Mm-hmm. nit kuy nelaw. paa bi fekk na Babacar. paa bi fekk na Babacar di nelaw si kaw teraas bi. Mm-hmm. fekk na ko muy ne mu tim ko naan ko yow trop dugaloon naa la defoon naa la nangam. naa la defaat nangam. defoon naa la defoon naa la nangam. dugaloon naa la fii naa la dugalaat fii. dugaloon naa la fii dugal naa la fii. comme defoon naa la nangam. naa la defaat nangam. après Babacar. maanaam defoon naa la tëj tëjoon naa du tëju. non non comme du tëju naan. comme defuma la dama ko yóbbu. police police. naa ko yow police boobu noonu. neen neen la fa de naa ko man paa bi xaw ma nag mais man paa bi. dama ma jox cël ju mot sëkk ma delloo. paa bi fii nii si kër gi. naa ko xale góor bi fi nekk ñëpp naa ko ba si doomam. bi mel nii man mi lay man mel nii man mi lay romb di ma nuyu. mel ni man lay waxal. man maa ko jox cër ju mot sëkk mu delloo ma cër ju mot sëkk. naa ko gis nga man mii ko boog gis nga gis nga man mi comme boog lu ma ko wan. lu ma ko wan comme boog ak moom li ma wan. waaw naa su ko wanoon ñeneen ñi tamit mm-hmm. naa ko loolu noonu leen koy jàppee waaw mais amaan na amaan na ko ma man lu ma wan mm-hmm. waaw ak man xolu muñ bu ma mun mm-hmm. bu mun muñ naa ko ñu am nuñu xolu muñ loolu noonu ah waaw ko si kër gi laa dëkk d'accord lan nga ci information ci li kër gi muy Babacar Babacar naa ko Babacar mii nii naa ko Babacar naa ko mii nii rey tey jaay yàmba daada waa ku ñu rey tey jaay yamba naa ko ki rey tey jaay yamba Babacar sama mag la ñoo bokk ndey ak baay Daawra sama mag la naa ko ñoo bokk maam Daawra tey jaay yamba Babacar tey jaay yamba naa ko Daawra tey naan sàngara naa ko Babacar tey naan sàngara daal ba mu mujjee faatu ba mu mujjee faatu naa ko ab mandi la faatuwaale dafa mm. conscient wul waaw ah, loolu nag leeroon parce que man fii laa leen parce que guddi bi. guddi bi guddi bi. guddi bi comme boog man ñëw naa parce que boobu noonu parce que boobu noonu dafa amoon sama yenn booy di toog fii si angle bi comme dañoo woon xeex. comme dañoo demoon xeex ba jàppante. ba jàppante comme ba am ku ñu gaañ gaañ bu metti ma damaa liggéey woon après si laa ñëwee tombé comme ma gis sama tonton bi di wax ak Daouda. mooy mooy ku ñu faat nii comme di wax moom di kenaan lii tey dañ ci kër parce que kër gi fréquentation mm-hmm. fréquentation yu bon ñoo fi am mm-hmm. ndax fi la ñuy toxee yàmba mm-hmm, ndax fi la ñuy naanee sàngara ndax fi la ñuy defee lu nekk ndax fi la ñuy sàccee dañuy sàcc ba fa ñu dugg si biir kër gi ndax ko kenn def ko ku dul Babacar muy Daawda parce que ñoom ñooy parce que ñoom ñooy jaay yàmba ñoom ñooy naan sàngara léegi yow sooy jaay yàmba léegi kenn ki ñëw kenn ki ñëw yow nga jaay tux ko fi ba pare naa ko dem yoonam naa suba tamit te indiwaat ñeneen. waaw mais naka nga def ba xam ne Babacar bi ñu koy faat dafa màndi woon. xam na laa xamee ku mu toog si jëm boppam ku mu toogal si jëm boppam ba mu expliqué loolu carrément Kumba dafa ne ma daara ba mu jógee fa ne di ñëw ba mu ñëwee di ñëw Kumba kanetu sàngara la yoroon Kumba di naan carrément Kumba énaa sama loxo bi dafa dagg mënu ma téye sàngara mm-hmm. Sadio am teel ma sàngara bi ba ñu kër ga mm-hmm. après ñoo ñaar lay ñëw toog di waxtaan. Mm-hmm. te dañ ñëw toog di waxtaan carrément naa ko ki dee nii tey naa ko moom moo menace de mort sama mag bi naa ko su ma la fekkee si kaw naa la rey naa la rey lii nii ni ginaar waaw léegi kooku tam tey armée wu taxaw parce que loolu lay dugal si xelam. ci xelam d'accord bi nga daaw rek bi ñu koy faat dafa màndi woon jot nga information boobu mais sa mag xamoo ba xam ndax dafa màndi woon wala dafa defandara bi muy faat Daouda. parce que sama mag sama mag gis na ay kii bi noonu comme boog ay ay minuit une heure de mat ba ay minuit une mm-hmm. parce que man damay fanaan fa la yeew su ma ñëwee ñëw sol changé dem liggéey fii du fanaan léegi une heure du matin laa ñëw naa ko daar parce que sama ndijaay dafa ñëw di kaas dool fréquentation bi tey dañ après man ma ñëw wax ak daaro mooy tax ay écouteur dégguma ma xëcc ko yëre ma ne ko daaro lii yaa ma su mën a jàppale fréquentation bi tey dañ fii après xëy tamit mere ma instant booy booy ñoom dañ ma mere si loolu si loolu ak xëy tamit mere ma après si lañ demee après si laa duggee si laa duggee di naan ndox si la ma sama après si la sama mag bi wàccee suuf naa ko mu sol benn survêtement bu weex mais tamit ku màndi soo gisee donc parce que man dof ma man fii laa juddoo màggee fi yoroo lu ñuy def xam naa ko bu baax mais man nekkuma si man liggéey laa xam wàcc ñoom ñooñu naanko ñoom naanko ñoom ñooñu di wax si kaw sax barki Seydina moo xam mun nañ ma seedal loolu naanko ma aw ma kenn problème fii si kër muy mbay muy muy mbay muy daawra ñooñu ñëpp naa ko samay mag lañ ma dama kii nu mu tëdd man ay 3 heures ay 2 heures matin une heure du matin kay fii laa leen dem tëddi wax ak daaro lu may wax ak moom dugaat wax ak mbay lu may wax ak moom dem tëddi a que si laa yeewoo ay 7 heures matin si laa yeewoo 7 heures matin di ñëw marché grand fii nii laay fanaan si gannaaw di ñibbi si après benn copain daawra benn copain daawra naa benn pël bu ndaw nii rek kooku moom moom moo fekkee lépp waaw parce que kooku nu moom damaa desante ak moom mu ne si ama nu mu tëddee sax démb Babacar Babacar ak Daawda dañoo demoon jotee fii mm-hmm. waaw ba Babacar jam ko mm-hmm. mu ne ko ah fan la ko jam mu ne ko fii la ko jam waaw mais jam bi metti na mu ne ko ah mm-hmm. fu ñu nekk mu ne moo instant ñoom ñoo ñu hôpital pour man affaire bi garaawul noonu quoi parce que tam fekkee fekkee yàlla dëgg-dëgg la bëgg sones naa ko kii dee nii tey daa yàgg daa yàgg mu sa tooñ sama mag bi parce que ñoom leen lañ da yàgg di menace di ko parce ñoom leen la wax amul fit amul fit du tooñ. amul fit du tooñ ndax ñu ñaa ñëpp laay wax ñu ñaa ñëpp kenn amoo si fit. d'accord ndax dem ci yoon boole ko wala mu toog dem si yoon boole ko mais mu mosul dem si yoon boobu mais mun naa la wan ni que naa naa ko ñetti personnes yoo xam ne nag dem na si ñoom naa clama leen. dem na dem na si El gindaa Ginda. dem na si ojo benn waaye bu nekk si si ginnaaw. Mhm. kalaame ko dem na si benn waay bu nekk fii dem affaire nanga kalaame ko nanga wax leen si booy booy bi damay def nanga damay def nangam mm-hmm. waaw mais man sama yaay laa seet parce que bëgguma indil sama yaay problème waaw mais moom chaque jour chaque jour rek chaque jour rek comme su mu nee di tooñ rek mm-hmm. suy tooñ mm-hmm. comme bu fekkee ni que comme moom moo ñàkk conscience tranquille donc du tooñ wax dëgg yàlla soo jéenee ñi lay waa koñ loolu lañ mais su mandi rek lay commencé lay commencé di tooñ dégg naa jour noonu dégg naa jour boobu noonu comme avant muy avant muy avant muy lii noonu naa ko si ngoon waaw naa ko xam am na fu mu demoon bay jàppante naa ko yi dagg loxo bi jour boobu noonu façon tooñ bu nekk mun koy def si si ngoon boobu noonu mm-hmm. ngoon mu façon tooñ bu nekk moo koy def gis moom su toogoon laa la yégal ni ko comme boobu bañ a dem fekk ji jógeewul noonu si sama frère xaw si lu ñu wax si lu ñuy wax c'est lu ñuy wax combo si moo kenn ñoo demoon ànd si baar bi ñu ànd si baar bi di naani ji sàngara léegi ñu ne carrément combo kii nii du dugg si baar bi léegi moom mu ne la moo tax kii du dugg si baar bi kii tey dugg par après loolu lañ jàppante après ba gars yi dagg loxo bi ba gars yi dagg loxo bi après si la demee combo sama benn kër nu jaay comme di ñaan kooku 1000 francs di koy ñaan 1000 francs di koy ñaan même 1000 francs ma paas ma dem paasement sama loxo bi après man loolu yëpp yëguma ko ma damaa liggéey woon waaj ab si laa waajee gis fii booy fa dañoo amoon fa problème booy fii fees fi dell man si laa ñëwee wax ak moom moom tamit tontu ma tontu ko am na parce que man moom maa mu sekkuñu yéen ñi waaw su amee dara may ma dem su ma amee dara may ko. Mhm. d'accord moom bi dem moom sama frère bi dem baat kii Seydina naa ko man xaw ma si dara. fi mu nekk nii kon fu mu toll nii nag suñu yaay lañ téye. kan. ah xaw ma. parce que sama mag bi toog moom mooy déggante ak leen rek comme laa leen wax. Mhm. parce que lii nii parce que lii nii comme ñu doonoo sago. Mhm. waaw parce que man mi tey su ma sañoon laa la ni ko comme dal daaro mhm. dal daaro nii naa ko Babacar lay dal. parce que su doonoon ñun. parce que su doonoon ñun. mbir bi du yegg fii. mbir bi du yegg fii seen papa dafa ñëw seen papa dafa ñëw prip. taxaw si exilé yi naan tey fayu naa nga fo naa ko lay fayonte ba mbir bi amee sama papa dafa ñëw teg taxaw si exilé yi naan tey fayu mhm. man boobu tontu naa ko ba pare mais dam ko tontu ba pare après rëcc ko c'est mhm. la moo tax ma rëcc ko mhm. parce que damaa xam ne instant yi ñun ñoo nekk si tort mais waru woon wax ñi nga tey fayu parce que doom doom la mais ñun tamit ay doom lañ ñun tamit ay doom lañ mais warul ñëw di naan tey fayu parce que ñun parce que ñun barki Seydina Muhammad naa ko sama mag sama mag dëgla ne ko naa ko dëgla naa ko naa ko ñoom comme si lu ñu nekk naa ko nekk na si mais billaahi soxoru naa ko néegul def nit naa ko lu metti néegul def lu metti dëgg la kombo si ñoom dëgg la kombo si lu ñuy dox mm-hmm. moom si lay dox mm-hmm. mais néegul def lu metti dafa ragal mm-hmm. barki Seydina Muhammad dafa ragal lool d'accord ok kontaan na